xam nga lu tiital jaaxal président Macky Sall dix-neuf candidats yi soo leen xoolee deuxième touru contrôle parrainage bi daanaka ñépp jàll loolu moo tiital la président Macky Sall en fait dix-neuf yi dolleeku ci tamit nag Karim Wade bi ñu éliminé parce que dafa am leneen lu laxasu ci kaawu Karim Wade deux mille dix neuf bañ éliminé candidature am Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ñëw wàcc fii ne élection du fi am am na ay kilifa diine yu taxaw dox ci diggante bi bés xoolu Abdoulaye Wade ak yooyu ak la ca xew ca Guinée yooyu yëpp Macky sàll joxe kàddoom. nag Karim dootuñu ko éliminer ci élection moo tax ba ko conseil constitutionnel éliminé mu ne kàddu gu mu joxoon ay kilifa diine ci kaawu Karim Wade ñaari mbir a ko sonaloon dix-neuf yi il était surpris parce que parrainage bi moom pour moom dina téye lu bari far parrainage bi nekk bañ a yuri bañ a yureeku la nekk ñu baree bare jàll ci parenage bi mu jaaxal ko lool d'ailleurs soo xoolee bu ñu xoolaatee parenage bi les règles seront revues bu ñu génnee ci élection présidentielle yi parce que nag ay waxante dëgg rek Sénégal 19 candidats ah bari na fi torop bari na fi torop donc dina candidats yooyu boppam il s'est rendu compte moom ci boppam Macky Sall ne élection yi ci pëccëxoo la jëm dollee ko ci nag ñu éliminer le cas Karim Wade yaa été nga yokk ci tamit Sonko dugal Jomaay dugal Cheikh Tidiane Dièye dugal Habib Sy carte gi jaxasoo nag Jomaay ñu koy pare ne dëkk bi di riir xam nga président Macky Sall kenn gënu koo xam ci ay élection ndax ci sondage lay dund matin midi soir xam na bu baax la réalité politique mu ñëw coow li li muy bari yëpp tëj Ousmane Sonko Pastef di gën a riir tas Pastef ëpp doole Pastef il s'est rendu compte tardivement na méthode yu ko jox yëpp pour faagaagal Ousmane Sonko ak Pastef ça n'a pas marché Pastef ak ñi ànd ak moom c'est réalité politique ay sondage ko jox yu leer nañ mu xam ko rax ci dolli ci biir kaam mu tàmbali cee wéet ndaxte am na ñoo xam ne kandidaa bi mu tànn dem nañ ko rallier bu yàgg moom lañuy déglu moom lañuy liggéeyal ndax Macky day dem looloo indi moom ci boppam mu perturbé wu complètement il s'est vu seul cundum déggatul kenn di wax walla kenn di def s'est rendu compte que dans son propre camp yulli nañ fa ay nit yu musta yaakaar ba ñooñu il ne répondent que de son candidat maintenant Amadou Ba looloo indi mu langaamu nag te soowul Karim Wade foofu la bëgg a dugal nag ne day wut stratégie changer complètement les donnes ci naka ne léegi et puis c'est man damay dem nañ yàq processus électoral bi reprendre ko à zéro ma génne Ousmane Sonko ba bu génne Ousmane Sonko lijjanti ba Ousmane Sonko mën a bokk ci élection ñëpp dem. en réalité Macky Sall li doon wax yëpp leen la bëggoon une reprise intégrale di processus électoral buñ ko defaatee nag laata mu ko def li mu doon wax noonu yëpp à zéro la bëggoon yóbbu compteur yi libérer Sonko libérer ñëpp. ñu reprendre processus électoral bi ñëpp bokk loolu yenn ci candidat xamoon nañ ko bu baax a baax a baax a baax moo tax nga doon dégg ñu doon xataraayu mais plus compliqué la coup été déjà parti <laughs> mënutoon nekk loolu comment boo gis am na ñoo xam ne soo gisee ci dialogue beeg yooyu ñu leen porter loolu mais boobu digganteem ak conseil constitutionnel yàqu na ba pare ndax li ñu tuumaal muskalaf yooyu di Cheikh Tidiane kolibali ak Cheikh Ndiaye wàllu ger ñooñu tamit braqué wu assemblée nationale indi loi am mu dàq ko moo tax nga gisoon ñenn ca dialogue ba taxaw soo leen déglu xoolaat leen image yu bi saa bu ñu waxee ñu reprendre processus bi tàcc yi danga ko doon dégg Macky sàll président de la république li ko gënal nekk ci biir xol bi mooy ñu reprendre intégralement la processus électoral malheureusement le coup était déjà parti mënutoon nekk te loolu lu mu ci jublu woon moom ñépp bokk même Ousmane mi nga xam ne daj na ci lu ne mais loolu ci biir kaam ci biir kaam am na ñoo xam ne dee moo leen ko jaraloon ba mu tuddee libération Ousmane Sonko rek am na ñoo xam ne dee moo leen ko jaraloon parce que dañoo tàmm fen-fen yu rëy yoo xam ne dara du ci dikk nga jàpp ni ci na ko ràpp ci biir keso mun a toog na pat ba pare nag di yëngal la champ politik munoo ci dara pro Amadou yi tàmbalee ëpp pro yi mu dem nag xam nga wax naa ko fi ne ko président est-ce que biddanti woo mu yeewu xippi xool xam ne affaire yi doy na waar commencé am xel ñaar est-ce que fichier électoral bi li ci xew garaawul logiciel bi ndax ci dolli moom beneen mbir boo xam ne dina ñëwi le vote étranger bàyyi leen ci xel le vote étranger bàyyi leen ci xel loolu dinaa ci def beneen waxtaan bu sérieux